Eh, daleen ak jàmm mbokk internet yi safo di seetaan Buzz M cant ak ngërëm ñenn leen si topp bi ngeen di topp seen bi li gën a fës si xibaar yi actualité jëm si mbirum election élection présidentielle 2024 ki di Cheikh Yérim sek nag daad nay àddu si lu ne mel ginnaaw ba nga xam ne président Macky Sall jël na dogalu eh, dàq élection yi ñu war ko amalat am deet lol lepp mom Cheikh Yérim sek dat nay dikk addu si parti Pastef bi nga xamne tamit tas nañu ko mom Cheikh sek mu am rôle bu ama amam solo bo xamne ne nag joué na parti Pastef bi fi amone muy xamle que ne bobé parti nekul parti bu responsable amul kenn ko ci ko ci am responsabilité lu ne mel Cheikh Yérim sek dal di wax dialogue bi nak mom nyosi na ne wa Pastef ñoo ci am bénéfice ndax kat nak euh, bu euh, len lén mën na am moy ñu bàyyi ki di Basir Diomaye Faye wala président Ousmane Sonko boba nak parti Pastef li ñu yag xex mën nañ né euh, dañu si jotto mu nekk nak mbir mu doy war moom nak daan nay addu tamit si candidat ki di Basir Diomaye Faye di xam ne que ne nag Diomaye Faye sax nak buñ waxanté dëgg warul mëna nekk candidat ndax buñu démé ci ku bok ci parti bo xam ne existeetul waroo mën a candidat té mom Bassirou Diomaye Faye ba jamono bi ñuy addo amul benn parti bo xam dal nek na ci nek cadeau yi ki nga xam modi Cheikh yirim Seck Jean Paul Dias nek bay ci Barthélémy Dias maire bu Dakar mom nak daal nay àddu ci mbirum élection yi dakh gi ñu ko dal dafa mel mom non nangu nako ndax kat ni mu waxe moy que ne di Bassirou Diomaye Faye nekkul candidat boo xam ne daal euh, mooy meilleur candidat warul mën a jiite réewum Sénégal lu ne mel euh, Jean moo ko wax di xamle que ne nag kii di Bassirou Diomaye Faye musul nekk chef de service musoo ko nekk kook moom ana fan lay mën a jiite réewum Sénégal Sénégal nag nekkul réew moo xam ne réewum kandang kandang la ku jug rek da nga war a mën a jiite mu nekk kàddu yi nga xam ne nag kii di Jean Paul Dias daal dina koy yëkkati moom daal li mu jàpp mooy que ne nag candidat yi fi nekkoon daal gisul ku si koo xam ne daal war naa mën a jiite réewum Sénégal nekk kàddu eh, ki nga xam ne nag moo di Jean Paul Dias eh, kii nga xam ne moo di soxna Aïda Mbodj moom tamit daal dinay dikkaat àddu nag si mbirum dialogue bi nga xam ne ñoo koy bëgg ak libération kii di président Ousmane Sonko loolu lépp moom it daal dina si addu jëm si ay kilifa nag jaar na si moom pour Sonko nangu élection yi ñu daal di koy dàq lu ni mel soxna ay Mbodj moo ko daal di xamle waaye nag moom loolu moom da bañ ndax dafa jàpp ne bu defee lu ni daal dafay wor ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko waaye dafay wor tamit Sénégal ba tax daal loolu nanguwu ko wax na ay kilifa ñoo jaar si moom ngir nag mu mën a wax ak kii di président Ousmane Sonko comme jàpp nañ ne moom yaay la si kii di président Ousmane Sonko rek. Ya lum ko wax dal war naka kaa mën a dal waaye mom mom soxna ay dembo da ko lank bañ japp ne loolu bu ko da fay wor kidi di Ousmane Sonko waaye tamit fay wor senegal lenen li nga xamne amna ki bok si wa Pastef mom tamit nak nek Sadikh Top muy wax xamal ki di president Macky Sall nu mu gëna gaawé dañoo wara amal élection yi ndax mom dafa japp ne li fi xew yépp yépp yépp kii di président Macky Sall war na see mën a seet daal ba daal di jàpp date élection yi ñu amal ko su ko defee réewum Sénégal dellu fa nga xam ne daal fa la woon di wax président Macky Sall tamit ñu daal di libéré détenu politique yi nga xam ne jàpp nañ leen te ñu nekk si kaso bi doonte am na ñu ñu libéré waaye daal des nañu baree bare ñoo xam ne jamono bi ba léegi ñoo ngi si kaso bi te politique képp taxoon ñu daal leen jàpp kon daal war nañ leen a libéré ñoom tamit.